asalaamaaleykum mbokk internet yu Sénégal TV amati naa mbégte bànneex bu baax a baax a jàkkaarloo te yéen ci écran bi nga xamante ne moom laay di tàmm di def à à chaque fois gëjoon ngeen ma gis nag gis naa seen jaloore gis naa li ngeen def gis naa aussi li ngeen ma waxal da ngeen may clash ak Marichou <laughs> yéen a ngi ci erreur Marichou femme mi yor yëpp mi maa ko jox su ngeen ma weddee woo leen ma seet Marichou lépp luy sama yëf xanaa xamoon ni pot kopp la tuddoon man maa ko découvrir sama yëf xanaa xamu leen loolu Marichou nag ku may jéem a clash ak moom di ma jéem a tëkkale da ngay sonn lépp lu mu def lu nekk man maa ko ko def loolu loolu laa amoon kon lu ma leen di wax man rek ci jonge dootoo leen ko defati ci àddina ciao ba fan incha allah bis sama loxo teg naa xale buy soog a judd sa da nga war ndax da ngay gis bébé boo xam ne ci xeetu jóge la bokk. xeetu jóge la kon damaa